tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ak Vox Populi xëy nag dikk ci Fatoumata bintu Gueye mi nga xam ne mooy doomu Mame Mactar Gueye bi na woon mes na menteña yéenekaay gi mu ñu xam lan ñu jamono ji nag coow li daat na si bëri lool ndax nag ajuma 14 février bi su Saint-Valentin Fatoumata bintu Gueye moom ndax ne woon mes na menteñ riir ay mbokkam ay mbokkam xamuñu fan la ko yàlla si di tiima ci biir loolu nag ci la Mame Mactar Gueye dem ca police police ñoom tima daal di def seeni dëbbal dëbbal génne seeni moyen jàpp xale bi nag ñoo ngi ko jàpp samedi ba vingt heures di jot ci benn auberge la ñu ko daal di fekk moom akub copain maanaam moom akub Saint-Valentin ma maanaam bisub Saint-Valentin bi ci boppam Fatoumata Bintou Gueye bii di doomu Mame Makhtar Gueye maanaam fanaanu ko kër waajuram journal bi nag nee na ñi nga xam na ñooy waa police ñoom nag daal di def ab déclaration wax ne Fatoumata Bintou Gueye maanaam kenn sàccu ko woon moom akub copain la ñu fekk ci ab auberge ñu nekk si jàmm tey sax ci altine ji danañu ko convoqué waata ngir nag daal di wéyal li nga xam ne maanaam mooy déglu gi journal bii di ñu xamal naan ñu en tout cas maam Makhtar Gueye mere na police lool lool lool rawatina ki nga xamante ni mooy lieutenant Ndiassé Guèye mi nga xam ne mooy porte parole police nationale Mame Makhtar Guèye nee na Ndiassé Guèye mii daal dafa mel ni nag dama singali maanaam dama eena ndax lii nga xamante ni moom la wax ne sama dooma dañu ko fekk ca auberge moom akub copain loole nag yàq na deru sama dooma ba sama doom jamono ji tàggoona ak sagom yàq deru famille bi Mame Makhtar Guèye jàpp ne ki nga xamante ni mooy lieutenant Ndiassé Dioum dafa yàkkamte wax ndax enquête bi jeexagutoon muy wax lieutenant Ndiassé Dioum moom daal la mu le nee na en tout cas li am ba des daal ñoom bi ñu leen koy yëgalee daan nañuy def siite yëpp ngir nag daal di koy gis gis nañ ko ci ab auberge moom akub xaritam loole rek la ñu daal di mën a wax aguna yéen a kaay gii laas mu daal di nag dikk ci Lamine Koyata mi nga xam ne rayoon nañ ko ca Fatick procureur nag jamono ci nee na ci daal di ubbi ab information judiciaire yéen a kaay gii di réew mi ko di gé mu ñu xamal naa ñu douane ñoom nag daal nañuy jàpp ay faux médicaments yu bare bare bari ca diwaanu Kédougou loo xam ne bi ñu ko xayma toll na si ñetti téeméer yu fekk fanweeri million ci sunu koppara yéen a kaay gi di libération ak las mu dikkal ñu si jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy faral di tuumal Macky Sall ci lu jëm ci mbirum communication ma ndax dañuy wax ne Macky Sall bu waxee rek tojkaas yi bu waxee rek wax giraawaal yi ak njombe gu rëy journal bi nag mu ñu xamalal ñu Macky Sall daal dafa wax ne am na nag ñoo xamante ni suba ngoon guddeeg bëccëg dañuy jóg di soppi ay waxam maanaam di déformer ay propos moom Macky Sall nee na su waxee ba pare ay nit ñooy jóg naan lee la wax yéenekaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu lu jëm nag ci tabbu maire bu Ndakaaru par décret loole nag Moustapha Cissé Lo moom nag daat na kay lànk ba tëdd sa naaj wa nee na loolee ci boppam moo yéenuwul maanaam Abdou Mbow daa di wax ne Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xamante ni maanaam moo suli coow li wax ko loolee moom rek la engagé ndax nag ñun mosuñu ko daa di waxtaane su suñu instance maam buy jaawo ci yéenekaay gi de la Tribune la mu xamle nee na maanaam nommé maire bu Dakar par décret loole nag maanaam deltu ginnaaw ci démocratie mënu koo weesu kaddu Moustapha Cissé Lo ci biir yéen kaay gii de xam ne ne àndul benn yoon ci Moustapha Diakhaté mi nga xam ne daat nañ koy dàq waaye yemul foofu moom Cissé Lo LP Cissé daat nay wax ne dëkk bi nag jamono ji ku ko waxul maanaam da ngay wax lu la neex waaye dëkk bi metti na lool lool lool ci askan wi maanaam nag na njëg yi nga xamante ni ñëpp gis nañ ne dafa daal di yokku journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu ardo mi nga xam ne ci collectif ñoo lànk ñoo bañ la ko daal di teg loxo ci diwaanu Tiwaawoon andi ko ci dik division direction des investigations criminelles la ko waral ñu teg ko loxo moom Ardo Gningue dafa bindoon ci page Facebook ma maanaam dafa lancé woon opération giri pale dem ba ca pale ba ngir nag ñu daal di bàyyi Guy Marius Sagna loolee nag la lancé woon ni opération loolee moo tax ñu daal di koy teg loxo collectif ñoo lànk ñoo bañ mbir moomee nag naqari na leen ba fa naqari yam ñoom sax nee ñu jamono ji nag maanaam lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama yi nguur gi fi nekk dañu koy daal di salfaañe yéen a kaay gi di esat di wax ci Sadio Mané mi nga xam ne ginnaaw bi mu amee gaañu gaañu daan nay dellusiwaat ci terrain bi niki démb jot naa dugal sax surnal bi nee na lu toll ci téeméeri bi Sadio Mané matal naka niki démb ci nag fi nga xam ne mooy Angleterre estat moo xëy di ñu ko xamala yéen a gi di sunu làmb dikk ci combat bi wara a dox diggante Siteu ak Papa Sow bi nag nee na combat la boo xamante ni ñoom ñaar ñépp a nekk ci danger ndax ki nga xamante ni mooy Siteu moom ci ay défaite la jugee maanaam nag daan Papa Sow rek nag mooy tax mu mën a nag daal di suqaliku lu mooy loolu rek moom Siteu dina gën a daal di suuxa su ko Papa Sow daane bi di sunu lamb ne Papa moom tim ginnaaw bi mu jogee ci défaite ñu dàq ko ci écurie Fass mu daal di sos écurie bu bees moom tim su amee defee rek giraawaali lay doon musiba maba kumba gu rëy ci moom